سيدنا النبي كوّر لي رحمة الله إلى العالمين la boo xamante ni yàlla moo ko yónnee doomu aadama yëpp moo ko yónnee mbindéef yëpp loolu nag moom la ñu bëgg ci ay minute yu gàtt rek mu nekk fàttali danañu leeral alquran li mu nekk loo xamante ne lu daj àdduna la yàlla wàccee ko ci ab yonantaam danañ wax itam alquran ni muy formé doomu aadam danañ ni muy yeewale société bi ñu nekk benn danañ wax itam alquran ni mu joxe liberté nit mu mën a taabiir maanaam mën a wax li nga xamante ni moo nekk ci moom wax ci alquran ni muy organiser alal ak ni ñu ko war a doxale alquran ni mu tege ay atteem bu ñuy xool alquranul karim dafa nekk loo xamante ni lu daj àdduna la mooy téere bi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala moo ko wàccee ci ak yonantaam in huwa illa dikrun lil alamin yàlla mu ni alquran nekk mbirul ak waar ñel mi ndef yépp loolu yubayinu alamiyat alquran day leer day leeral alquran ni mu nekk li nga xamante ne lu daj la alquran moo nekk ak waar ñel mi ndef yépp waxaan wa ma huwa illa dikrun lil alamin nekk lu dul ak waar ñel mi ndef borom bi subhanahu wa taala dellu waxaat ni wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa nadira walakinna akthara annaasi la yaalamuun yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam damaa yónni ci doomu aadama yépp nga nekk di waare ak a xutbe tege ci yoonu njub waaye ñu bari ci nit ñi xamuñu loolu waxaat am ñaan tànn ko yaa ayyuhan naas yaa ayyuha nnaas inni rasulullahi ilaykum jami'a daan ne waxal nit ñi waxal nit ñi ne leen man la yàlla yónni ci yéen ñëpp kon loolu itam benn junj la benn joxoñ bi wane ni ki yàlla mujjee yónni te du yónniwaat keneen gannaawam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax yàlla ne qul yaa ayyuhan naas waxal nit ñi foofu ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp lépp lu xeet ak nit yaa ngi ci biir lan lay wax inni rasulullahi ilaykum jamia ci man la yàlla yónni ci yéen ñëpp amul xajj ak seen borom bi subhanahu wa taala leeralaat lenn rek ci li nga xamante ni mooy wax ni alquran lu matale la تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا waaye sell ak barke ñeel na borom bi nga xamante ne moo wàccee ci jaamam bi furqaan mooy liy tekkale dëgg ak caaxaan muy alquran al karim ngir mu nekk jaam boobu nekk di waar mi ndéefi wala alquran nekk diwaar mu ndóof yi kon baatu abdu nazalal furqaana ala abdihi yàlla baatu abdu la jëfandikoo waxul ar rasulul annabi loolu itam day dund ni doomu aadama bokk na ci martaba bi mu gën a rëy moom mu nangu ne ab jaam la borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratul baqara wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna suuratin min mithlihi wad'u shuhadaa'akum min duunillah in kuntum saadiqiin boole la nga xel ñaar sikk sàkk li ñu wàccee ci suñu jaam bi foofu ab jaam la yàlla woowe ab yonantaam suuratul nisaa borom bi subhaanahu wa taala di waxaat ci yonent yàlla Isa lan yastankifa almasiixu an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun yontu yàlla Isa yàlla foofu ab jaam la utilisé na Isa ba ñu lekk ni ab jaam la kon doomu aadama war di jombale boppam ni jaamu yàlla la yàlla mu ne malaayka yi nga xamante ni ñu ma jige lañ ñu ko tudde xamalatul arsh ñooñu itam rëy rëy lu ñu ay jaam lañu yontu bi alayhi salaatu wasalaam yàlla bi mu koy rañaane woowee ko turam Muhammad ولا الرسول ولا النبي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير yàlla dafa rañaane ab jaamam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu itam yàlla tuddul turam kon itam nangu ne ab jaam nga lu am solo la maryam wala suratu kahf alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba walam yajal lahu iwaja foofu itam baatu jaam la yàlla joxewaat yant bi sallallahu alayhi wa sallam même ci biir saar wi bu ñuy nettali Moussa ak Xadir fa wajada abdan min ibadina kon dem mu ne ab jaam nga lu am solo la même ci suratu maryam borom bi subhanahu wa taala ila kaaf haa yaa ayun saad dikru rahmati rabbika abdahu zakariya yàlla itam jaam la joxe ñaar foofu yonent yàlla isa alayhi salaam biñ koy jiñ ni moom yàlla la wala doomu yàlla la bi muy sagal boppam li mu njëkk a wax inni abdullah aatani al kitaaba walam yaj'alni jabbaaran shaqiya moom dafa nangu ne moom ab jaam la waaye dem yomal qiyaam bu ñuy dekk ñëpp amul benn martaba buy am doole bu dul martaba jaam du martaba ustaaz wala sëriñ wala lu mën a doon in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abdan laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan foofu itam li yàlla joxe yowma alqiyaam doo ànd ak kenn kenn du la gàddal say dàll wala di la yëkkati sa yére wala ñu lay jiitu wala ñu dem sa gannaaw yow dong yaay ñëw jàkkaarloog sa borom yàlla waxaat ci alquran tabaraka nazzala alfurqana ala abdihi wa arfa'uha ila abdihi ma awha وقالوا أنه لما قام عبد الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كل يوم day junj borom bi subhanahu wa taala ne ëllëg ku koy dikkal ab jaam ngay doon yéen ñuy jàmbat li nga xamante ni mooy ak tiitaange ak sikki sàkka dox demle na ngeen teqoo alquraanul karim wa yaa man yashtakuuna min daafi l iman aleykum bil quraan yéen ñuy jàmbat li nga xamante ni si mooy ngëm yàlla gu wàcc na ngeen teqoo alquraanul karim ndax wa nunazzilu min alquraani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة برب سبحانه وتعالى من جنب الله أبن يجي رسالة القرآن في تكوين الأفراد معنى القرآن نمي فورمي individu doomu aadama di nekk alquran mu lay joxoon am lu muy wax ak yow bi njëkk mooy taariful insaan bi aslihi wa masirihi alquran day xamal doomu aadam fan la jóge ak fan lay mujj mu nekk lu am solo ndax yow doomu aadam nga xam fi nga jóge ak fi ngay mujj daa la dimbali nga xam fi ngay teg sa tànk wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin yàlla mu ngi lim atwaaru xalq ibnu aadam maanaam état bi yàlla jaar ak doomu aadama ba bind ko mu nekk nit nekk nit njaay yor ay noppam ak ay bëtam di wax état bi yàlla yàlla ñun gannaaw bi nga xamante ni suñ maam aadam yàlla moom la bind ci matière première muy suuf